alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki jullit yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yontam bu tedd bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñu ngi amaan mbégte ci ñëw ak yéen ci suñu jotaayu koor bi ñu waxtaanee ci lenn ci àttey koor amoon nañ fi gan gu màgg di al Oustaz Mahmoudan Seye ñu waxtaane woon ci histoire bu mag boobu ndam lu rëy loolu nga xam ne lislaam amoon na ko ca eh, xare Badar nga xam ne lañ doon fàttaliku tey nag ñi amaat fi geneen gan di al Oustaz Babacar Kébé ñu gën koo xam ci Oustaz Mbaye Kébé moom tamit nekk jàngalekatu arab ci fii ci daaray Koki eh, di am taxawaay bu ràññeeku nag ci liggéey bi ñu gën ko ràññee ci ay conférence ak eh, taalif yoo xam ne nii dana bari lu mu koy def ci saa boo xamee ne ni dara xew na di boroom xam-xam bu bu bu rafet xam-xam te nangu ko joxe lool kon ñu ngi dalal suñu mbokk al Oustaz Babacar Kébé di la wax ahlan wa ci suñu jotaayu koor asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi bokk di ñu teewlu ci gox yi fasantikoo ci biir àdduna ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo boobu ñu jiital te mooy nuyub lislaam di bég ak kontaan ci jotaay bi nga xam ne sëñ Xaadim Lo Ahmad Bamba moo ko taxawee ba noppi nag yaatal ko ci façon boo xam ne xajoo ci ñëpp ba kenn ku ne mën a ñëw fisal ci yéeneem ci liggéey bi nga xam ne liggéey bi yàlla la boo xam ne moo nu fi indi ndax loolu mënu indi ci àdduna wa maa xalaqtul xam ne ci la bokk euh, suñu xaalis nag ci taxaw taxaw bu rëy ànd koog euh, tax Abdul Xaadir Sekk moom itam moo ciy def effort yu mag rawatina nag bu dee ci weer yi nga xam ne mooy weeru jaamu yàlla nag dëgg-dëgg. weer yëpp jàmm mm. kii waaye nag li sëñ Hadj Malick waxoon ne bi xisami bi xisami zamaani wal makaan yi temps zumu temps maan xisiyaan yi eh, ni barab bi toll wala ni temps bi toll ci ak daraja di ko yàlla jox ak jaamu yàlla goo ci def day toll noona mooy yàlla goo def da ci toll noona kon weeru koor defe naa ne lii ñi ngi def nii baax na weer wu nekk waaye nag ci weer yu di rawati ñii la ci sant bu baax suñu di joyal ak nuyoo nag di ko jëmee ci sëñ Maxtaar Naar bi nga xam ne mooy kilifa barab bi jiite ko wuti ca bàyyam ba sëñ am Cheikh Ahmad Saxiir Lo ñoo ngi ñaan sëñ Maxtaar moom yàlla su borom yàggal ko lool ba li mu yéenee te naalal ko liggéey lislaam yàlla kàttanal ko mu àggale ko fa raw njot mu raw njotul mboolem ñi ak ñi nga xam ñoo ànd moom liggéey bi kon ñu ngi lay delloo kàddu incha allah. jërëjëf al oustaz Babacar am na solo am na yàlla nangu ñaan yi. amiin nga junj la am solo di al oustaz euh, Abdou Khader Seck ci taxawaayam. Mm-hmm. Mm-hmm. moom mooy al jundiyul majhuul mm-hmm. sax lii am lépp moom la waaye kenn du ko gis. daanaka lépp li ñu gis nii ci ay programme ci daare ko kii bu yembee bañ mën koo jariñoo di ko seetaan lépp ab taxawaayam la kon ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal bu baax yàlla ngeen koo taxaw dafay ko euh, léegi oustaz dañuy dugg ci waxtaan tey rek Euh, te lépp jëm ci koor mm. dañuy gis ne ci alquran borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ni mm. yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum asiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum mm. laallakum tattaquun mu ne koor faratal nañ ko ci yéen comme niñ ko farataale woon ci xeet yi leen jiitu woon waaye ngir ngeen faggu ak yàlla kon ndekete koor day tax nit ki faggu ak yàlla kon nan la jaam bi wala jullit bi a def ba fàggu ragal yàlla boobu ci koor waaw jërëjëf sëñ Xadim ci laaj boobu nga laaj muy laaj bu am solo ndax ragal yàlla mooy li nga xam ne fa la nit ñi di gënante inna akramakum indallahi atqaakum nit ñëpp ñoo bokk jóge ci moom aadama inna asla kulli naatin aadamu wa huwa min tiini turaabi fa'lamu loolu seen doomu ko nee nit ñëpp seen cosaan mooy maam aadama te maam aadama ci ban la bàyyi ko kon booy xool nit ñi di leen classé day mel ni ñëpp ay naaw lañ moo tax euh, Seydina Ali ibn Talib waxoon ne annaasu min jihati na nag benn mexiyaar mooy peesekaay boobu bu yàlla boo xam ne gënante am na fa moom nag bokk na ci ni ñu koy fàggoo weeru bokk ci ni ñuy fàgg ndax day loo weer woo xam ne def ci ak njëttal du lu yomb maanaam yomboon na waaye yomb léegi nag nit nag yomb gi mu yomboon te yomb te yombul ko ci boppam loolu da koy fàggu ak ku làq woon naan su diggante sa borom rek yaa waaye nit ki nag am matu ñàkk làqu naan kon kooku am na ku mu yëg ne mi ngi fugloon te moom te kooku mooy borom loolu nag nit bu bëggee mu gën dëgër ci moom dafa jaadu mu xam nag euh, lu ko ci dimbale moo tax boo xoolee ku mel ne Serigne Touba ci biir Masaalikul Jinaan mi ngi wax ne amma siyaamu fa huwa afdalu ma talabta mardaatin bihi wa nihama fa huwa min afdali ma min waaw min afdali ma talabta mardaatin bihi wa nihama nee na koor dafa moom dafa bokk ci li nga xam ne li ci lu nit ki fàggoo ngërëm ak i xéewal koor ci la bokk mel ne dañ ko laaj lu ko waral mu ne li am na fil jannati baaban laa yaqib fiihi siwa ahli siyaami faatasib nee li ko waral moo di dafa am ci bunt boo xam ne kenn du ko romb jàll kurul ñi nga ne ñoo doon woor kon nag faatasib gaawal fàggu ab yool ci biir weer woowu moom baal bunt boobu lañ ñuy tuddee waaw bunt boobu waxal sëñ bi jannati baaban yusammaa ar-rayyaan mm. laa yadxuluhu illa saa'imun illa saa'imun hadis boobu lay joxañ fii ci biir bayt bi waaw xam nga mag ñi dañuy def ñoo iqtibaas mm. maanaam jël maanaam ab hadis wala maanaam ab aaya daxañ ko ci biir aw bayt kon soo xoolee maanaam hadis boobu nga wax ne yonent bi wax ne sallallahu alayhi wasallam ne biir àjjana ànd bunt boo xam ne bu jëmi bunt boo moo tudd Rayyaan kenn du fa romb dugg pour ñu daa wax loolu sëriñ bi ko kon nit ki li tax mu am loolu nag mooy taxawaa bi taxawaa nag buñ koy wax rek mooy fexe ba sax ci yàlla di di dooti tere loolu mooy loolu mooy taxawaa koy jëma ci nit ki tax ba tey mu waxaat fële ne euh, am summa siyaamu fanta bi lam yenn xasir léegi kon euh, Oustaz Babacar mhm. dafa mel ne mhm. euh, li nga xam ne nit ki mooy tax mu gën mhm. moom lay gën a ay moroomam fa yàlla mhm. du juddu mhm. du alal mhm. du xam-xam du leneen waaye ragal yàlla kon nit ki li mu war a xëntewoo mooy ragal yàlla nit ki li mu war a xëntewoo mooy ragal ndekete koor day tax day tax nit ki am ragal yàlla tax nit ki am ragal yàlla ndax daf koy fàggul waaye dañuy gis ne koor ñun dañ koy jàppe woon rek bàyyi lekk ak naan est-ce que koor bàyyi lekk ak naan dong la waaw loolu tax nit ki am ko am am yoolu foofu laa bëggoon a ñëw ndax euh, secret boobu ñu bari xamuñu ko te xam nga yéen bi alayhi salaam wax na ne man lam yadax xawla zuur wa amala bihi falatillaa fii an yadax fii an yadax bi nee na koo xam ne nii woor nga waaye wax ju ñaaw ak jëfe ko moom tegoo ko fee yàlla it amul soxla ci sa teg fee goo teg fee lekk naan nga xam ne kon teg di teg lekk naan ñaar yooyu nekkul ñaar yooyu rek lan la baraw ndax nekkul ñaar yooyu rek la baaxoo waaye dafa am bëgg ndax jëmmi asawu ji boobu rek mooy al imsaak mooy téye sa bopp téye sa bopp nag rek pour mu ñaar rek waaye am na yeneen yu war a téye. kon war a war moom lay euh, joxoon fii ci waxi seen tubaab yi wax ci baabu fi saw mi googu mu indi ci biir masaal ko dinaan wax ne su siyaamu fanta bi lam yanxasir fii xadamil akli faqat daa tax tamit nee na bu waru de ba jàpp ne koor dafa tënku rek ci ñàkk lekk ak ñàkk nag nee na loolu de farumba saa imin mahal jamaa laysa lahu fii siwal majaa nee na bari na ku woor ànd ak mbooloo mi te koor gi mu woor jëlew du ci amee lenn lu xiif ba ba mu ca rek loola da ci amee waaye du leen ko fekk te woor nga mar nga xiif nga sonn nga te ndekete loolu mi ci ñu ne ko ah loolu moom mu ne fas saw mu an yasuma kullu hudwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi koor dëggantaan fa som koor dëggantaan du ko tekkal ndax am woor jàpp ne woor na waaye wóoru dëggantaan kon koor dëggantaan mooy cër yëpp dañuy woor comme ni ko waxee ci lépp luy ñoddi nit di ko jëmee ci njuumte ñu ne ko comme par exemple mu ne am si anin nazari lil xaraami téyel sa bopp ba doo xool di jëm ci lu araam dafa naan loolu nit ñi war nañu xel wax mu ne sax jëm ci xool di ca jëm wala machine bul dox di ca jëm wa sam yi bul déglu di ca jëm waaw maal kalaam yi bul wax di ca jëm ñu ne ak lan mu ne wax mu wax lu gën a garaaw ne wa kulli fikratin radiyatin kama an sakta an ak wasul ma waxuma ne sax yooyu ne waaye bépp xalaat sama xel fexeel ba di concentré sa bopp di jéem a fugloog sam xel ndax am xel xam nga dañ ñaan bu dee gone bu toll toll ci wàllu njàng de rek euh, vingt quatre secondes la mën a concentré wu pour bàyyi xel ci dara waaye mag tim boo xoolee ni mu ëpp loolu bëriwul waaye ni teewut loolu jihaat la nit ki war nañ jihaate boppam ba. effort effort boo xam ne mag la boo xam ne koor bi boo waree war ngaa fexe ba sam xel sax nga bañ ko wàcc muy wët ne indi comme ni nga téye sa gin gi nee na ci lekk naan fexe ba téye ko noonu. macha allah waaw solo Mbow kat eh, waxtaan wi am na solo xam naa bu ñu la bàyyi woon tamit njëriñ rek lañ ngay ngay wax waaye xam naa temps bi bàyyiwu ko eh, ndax émission bi eh, ak ni mu ni mu demee kon daal dafa mel ni nit ki mën naa woor waaye koor googa mën na cee bañ a jë jëree njëriñ. dëgg mel ni ak xiif rek la koy jëre waxaan na ko sax ci beneen bëy boo xam ne moom la tëjee ndax nee wala tukassiril wala tukassiri suxuura wal futuur mumtali al batni fa toxramal ujuur nee na mën ngaa woor ba ngoon jot fekk wooroon nga na nga war a woore waaye dog jot na wala xëdd jot na nga defe ne mën ngaa jël loo xam ne mën na laa téy ci bis bi te yàlla moom moo lay may kàttan bu la tëj bis bi kon nee na bul bul bari ak bu doog jot rek nga teg yëpp di xaab-xaab bu xëtt jot ci gëtëm yëpp di xaab-xaab yi ndax neen loolu soog la fattu rama jur dafa naa faa sabab yi xam nga ko ci ñi siran xam nañ ko ci naxu maanaam euh, baril xëdd beeg baril koor gi day sabab ñàkkub yool waaw ndax lii sëñ Tuubaa di wax ci gën a xëdd da muy jawaab mahmoud ilhamul ilhamul salaam ilhamul wadud fi jawaab mahmoud nee na wala tufidu wala yufidu nahiman ma akala am si kasiram yom ma xum suu jalaa nit ki dam lekkoon démb bis bu xiibee tey lam nekkoon lam nekkoon démb lu mu reggoon reggoon du macha allah macha allah amati na solo solo Babacar na loolu dafa gën a concerné suñu mbokk ma siise yi ak ma kebe yi naa ne nga xam ne koor gi mu ndox jotee dañuy jàpp rek dañuy jëfandiku rek. te loolu nekk dëgg dëgg boo feesalee sa biir ba mu fees mën na laa xañ taxawaay bi mën na laa xañ yenn yenn liggéey ci koor gi kon dañuy yemani fii nii rek incha allah di leen. jox dig daje ba ëllëg ak jàmm incha allah wa axiru daawaana an alhamdulilahi wa rahmatullahi wa barakaatu yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne